mbokki Joal Fadiouth ak Mboki wër mbokki yi mbokki événement bu mag ni ñu première édition drapeau du maire de la commune de Joal Fadiouth ñu amal les 16 et 17 juin 2023 en partenariat avec l'Association des inspecteurs de la jeunesse et des sports en retraite mbokki lamb ju mag a ngi ju maga stade municipal François Bob mise bi nag déglu bu baax li ma lay wax ñetti millions lañ ci teg 3 millions de francs CFA moom lañ teg ci mise bi lamb ñaari fan boo buggee gis mbër kaamil mbër mu xarañ mbër yi gën a mag mbër yi gën a technique ci réewum Sénégal da ngeen teew ci làmb jooje nga xamante ni mairie bu commune bu Joal Fadiouth dina ko amal